nuy jëkkante ak waxtu wi di yëkkati sunu kàddu muy kàddug fàttalante rekk kàddug laayante biir kàddug soññante ginnaaw boo xamante ni ni nun ñépp maase nañ xam ni fii du kërug saxukaay loolu amut ku koy nattable ci ñun mbaa ku cay sikki sàkk kon ab jaaruwaay la mu am fun jëm te foofee nu jëm dara du fa jariñ lu dul ak ragal yàlla képp moo fay jariñ loo fa mën a indi te du xol bu set bu laab dana la indi li jafe-jafe kon su nasee mbooloo mii nu boole nuy séq ak yéen ay jataay li ñuy wax lépp foofe rekk la war a aju ndax mooy ñu suñ njariñul tey mooy suñ njariñul ëllëg nit ñi nag moom neexatuñoo waxal ndax la sëriñ Cheikh Mbàkke daan wax rekk mooy ñu bari baaxuñu te li ñuy bon bon bëgguñu ku leen gën loola nag ku ca ne war ngaa fàggu sa bopp war ngaa teel a am yitte te daw jëm ci sa borom moo tax muy wax ni jàngi leen seen diine te def ko ci seen xol yii te jëfe ko ngir yàlla ji leen seen diine te def ko ci seen xol yi te jëfe ko ngir yàlla képp ku ko ci defut bis dana ñëw danga ko réccu koo mën a yaakaar yërmaaneem sun boroom a ko ëpp yërmaane ci yow koo mën a yaakaar ndimbalam suñ boroom a ko ëpp ndimmal ci yow té sëñ tubaa waxon na ni bu xasse yëkëti yaram ba bay dor kenn amut fit ak njambaruk di ca japp kenn kon nanu ci wat sunu xel bu baax a baax te fedd liwaat sunu laxasaay te wan dau gannaaw daw jubali sunu borom jublu yalla nak weesuwut def li mu digle bay bay li mu loola rek mooy jublu sun borom te loola yàlla wu ci lus mënut mboolem lim ci santaane lépp mën naa nekk kon aw lay amut mu mel ni tomb bi nu bëggoon a waxtaane tey fàttalante ko ak yéen mooy minute yu mujj yooyu doomu di mujjee nga xam ni mat naa bàyyi xel mu baax a baax te bañ ca wéye njort ndax minute yu doy waar la yoo xamante ne ni ni nga koy séene ci sa bët bokkut ak réalité ba fa nekk ni la ko sa bët di wane du dëgg-dëggi mbir ma te bokk yi ndekam bët moo lay wan lu dul dëgg askan ak njort te léeg-léeg sa bën wat la lo xamanteni ni woor na ne la bu ñuy wax nga naan mako gis waye du dëgg wérut dana ci joxe exemple bu ndaw bu yomba japp jant bi rek boy teen da nga naan jant bi moko bi am da ngay defé ni moko ko palaata buñ la ko yanee man nga ko yóbbu ndaxub way jant bi xamal ni mo upp suuf si nga taxaw li suuf ci aduna jant be ko upp motax kuten ku ten man ko gis bidiw yi bu gudde da ngay defe ni bidiw yi buñ la ko joxee man nga ko ŋëpp ndax toti waye loolu la sa bët wan waye du deug sauf si nga taxaw amna ci bidiw yo xam ñoo upp sauf si ndagam bët lay wan lu du deug nak askama ak lo xamanteni ci njortu rek nga ko tek motax nu bëgg ak bokk yi jataay ndax ñu mën koo bàyyi xel faatu nag boroom xam-xam yi wax nañ ci lu bare bari xëy na am na ñu ko gëm am na ñu ko gëmut luy problème bi mooy ña ca xas jaar moom xam nañ nu demee waaye retour amut bañ mën nu ko nettali ñun ñi ci àggagut lu ca way wax dañuy def ne da wax rek ndax wut noonu ndax légui la doon wax ak diw bam yag ñu ni ma faatu diw daa teud rek yewut da doon añ tibb sex ñu yelop loxom genné da doon duggi ba ñew di waaj a ca wañu wa da doon wote latu ñu koy wuy ji ab dekk ko tuxal fobi ne dang ko gis dëkkub lëm ku ko bëgg a toxal fob yi nu néeg wu ne danga ko gis loolu rek lay signifié waaye tekkiwul ni dee dafa yomb moo tax mu mat a bàyyi xel bu baax a baax boroom xam-xam yi biñ ni misaal ci faatul la leen ci sun boroom xamal dañ ni mi ngi mel ni picc moo suqi ba mu set pool yi ñuy saafe gerte nga saasal ko ba mu saas nga jël picc ma teg ci diko saaf te réyoo ko ñu ni noonu la dee méttee ñenn ñi ni déedéet mi ngi mel ni nga tiim am xar rendiwoo ko ba pare di ko fees bëgg a tàggale der bi ak yàpp wi te rendiwoo ko ñenn ñi ni mi ngi mel ni juróom ñaar fukki ponkal kenn ku ne yor jaas yi ñu xàccandoo ko dóorandoo la ko benn yoon ñeneen ñi ci des joxe misaal ni mi ngi mel ni car kami, xamni dafa am ay deg sax ci sa yaram ba fu mu japp fa ba am ciat lu genn ci kaw ñu jox ko ponkal ni la buddiko ko muy rocc ko ba kérok muy jeex ñoñu non lañ ko joxe misal motax may wax ni dang ko umpale ndax jaaragun ca te ñata jaar netti ko ndax retour amut waaye ku ci àgg danga xam ni yàlla boor la mu ngi mel ni ndeysaan jigéen ñi ci jaar ci am doom sooy wax ak gone ku jigéen gu sëyagut loo mën a wax day defe ni dangay dangay ñàngal rek waaye affaire bi demewut noonu waaye bis bu yéegee ca kaw taabal ja balaa doom jaa judd dana xam ne li nga ko waxoon lépp dëgg la te loolu du dara ci dee jotiwuñ dara ndax dañ ni mettitu am doom mok damandoo ñaar fukki yax ak ñent ci nit ñoyam nga damandoo ko benn yoon mettit wo digënté bi dom ji génn mettit wo la yor waye sekkar ba ci sun borom def moy bu dom ji juddo faté nako bokut ak li nak motax nu war xel sun bop bu ci taxawante ci sunu biir ba waxtu yoyé buñ ci aggé taxaway yimu laaj nu man ci jàppalante té yaakar yermane sun borom loolu rek mo waral jotaay yi ñu diko def nu gis ni jotaay la yo xamanteni ni ku nekk ci ñun sun wal nga ci li tax wax ji neex nak moy daane ca kanam su neewon ca gannaaw da nga nan man weesu ko waaye ci kanam te nun ñepp ci lan dox jëm lu ne ci kanam nak te nun ñepp dox jëm ci mom wax ci yomb na ndax ku weddi mom dang koy bàyyi ba mag ci te kenn ku nekk ci ñun sab ci reeng ci bo xamni kenn du la ko jëlal kenn kenn du la ko jëlal ya koy teggil sa bop motax tay ñu tan non tomb boobu yi ngir bëgg cee laayante biir mu mel ni nit ki bi muy manal boppam boobu ku ne mën naa dëkk ak moom waaye man-man bi da kontine ndax doomu aadama ak dundam ak néew doole da koo jiitu ak néew doole mujj ko man gi ne ci diggante bi kon li mu néew doole moo gën a bari li mu am doole te ñaar yépp benn bu ci nekk taxawaay la laaj yu am solo sax rawatina nag bu mujj bii nga xam ne sun borom dee la jëkk a bind te ala kulli xaalin dana ñëw te jàngoro la ju suñ borom boole ak nun te kenn amul lu koy fajtal bu la nee saraax dee rekk fa su woppi dee xasee njëw amul kenn ku ca man dara xanaa bu ñëwagut ndax nak dañ ni doom adama am nenyari ñaari dig benn bu njëkk bi man nako wessu muy sun borom dogal nako waye namuko bu mujj ba nak dako dogal ba pare sering ken kenn mënta tee mu def ko bu njëkk ba nak sarax man nako fek fekk sëriñ bu mat ab sëriñ itam man nako fek man na tax ba bu ba do ci dem waye bu mujj bi mom saxar gu départ ci gar la jëm ci gar kuko ag dana la yobale ken amut saafara moo tax bu nit woppee fi ñu ni da ngay dégg ñu ni dem nañ ci docteur yi rajo nañ ko def nañu analyse waaye gisuñu dara te moom xam na ni wérut ay bokkam xam nañ ni wérut loolu dana ko nangu dem nañ ci sëriñ si sunguf su ne joxe nañ ko xànc gu nañ ko ko ndox mu ne sol nañ ko ko waaye day mel ni wopp ji day yokk moo mu ne xatta waxii la man raaq mooy ñëpp jaaxle nañ léegi li ñu wax mooy ay waay ku ci man dara boobaa kenn mënu ci dara moo tax boroom xam-xam ba wax ne wa isal maniyatu ansabat asfaraha fa alfaytu kulla tamimatin la tanfa nee na bu dee xasee samp ay weem ne ma dagg téere yépp sànni nga xam ne amatul njariñ njariñatul dara digënté bobu nak day digënté bo xamanteni ni digënté diggante bu bu yërëmtalu la ndax dara ca gënu ca metti yow mi teud mu wóor la tëraay bi boko joggé ci biir pax nga jëm lolou dara gënu ko metti dara gënu ko daw aw yaram mu wóor la tëraay bi nga teud mom so ci joggé yow ci biir pax nga jëm nga and ak ak lay metti ci sa yaram wala sax man na am yàlla mën naa def sutura sa yaram dara metti waye wóor nañ la mëno jog wala bo dé jog di dem itam wéro té wóor nañ la li la dal moom mënta yag ndax ñaari nit su dana am lum xam ci bopam lo xamanteni ni dana ko ni ko li mu andal su mom bakkanam da tàggali ak mom nak li mu laaj mooy njaboot gu bari yërmaane njaboot gu laabiir njaboot gu am sutura te am cawarte loolu moo taxoon mag ñi daan ñaan ni yàlla bu nuy sunuy taxawu jéppi yàlla bu sunuy taxawu jéppi ndax léeg-léeg nga am malaat boo xamante ni ak room bu newoon ci sa loxo danga koy jekkali waxuma la moom mu noppalu waaye yow ci sa bopp yaa soxla noflaay ci sa bopp ndax saa yoo yore ko wopp rek daanaka yow da ngay wopp ba keroog muy dem da ngay wopp waaye ñu gën a soxla nag taxawaay yu gën a jege yooya ci bu tàmbalee waaj bu tàmbalee waaj nit da nga ko gis moom mu na la fi doon nii ma nga ca yoon wa loola doon nañ ca sopp lool nga farlu yow mi ko yor ci sobe di di tàggoo ak moom fexe ba aw yaramam di set ndax daa bari ñu tayel lool loolu mooy tax ñu nit bu tollee foofu na ko am sutura daje jege ku am sutura nit ku tollu ci wàccaay woowu moom nit ku toll ci wàccaayu am dooma yam nit ku am sutura lañu bëgg mu dend ak moom ku am sutura ndax daa bari foofu yuy xew te boo ko séqee ku amul sutura da koy nettali te foofu sutura la laaj ndax diggante bu bu tara tar la léeg-léeg bokk yi nga gis koo xamante ne nii kenn du ko mën a dox mbokk mu jege te am sutura rek te am maîtrise nak man muñ ak akuk dal te xamni li xew mom kenn xewalu ko yalla dong ko xewal mom rek ko man da ngay gis ño xam ba la ño faatu fiñ teud dañ ko saw bam toy xep gis ñoo xamante ba la ño saatu seenu taat dana tax xep yaqo ndax bari na lo xamante ni ma du agsi ci mom ca ña koy saytu ca lay bu nit ñu nañ ko bi tëral ko ci suuf ndax tëraayub suufa a ëpp yërmaane déedéet an suuf dem tuuri indiwaat suuf su bees daa gën a yomb weer ab mat laa te moom contrôletul boppam xamatul ci boppam dara lim def lépp fi mu tëdd la koy tëdd moo tax ñu ne àdduna loo ko mën a yanu yanu ci toroxal la lay mujj ndax magum jëmm mu kàllax moo xamante ne ni dem na ba léegi bu bëggee tuur ndox fi mu tëdd la koy def bu bëggee dem wanag fi mu tëdd la koy def kooku mbokk mu sës ci moom dong nga ko mën a taxaw te loolu yàlla jombalewu ko kenn nag kenn kon laaj naa foofu ay taxaw danañ bëgg itam ku farlu lool koo xamante ne nii waxtu jaamu yàlla yu julli bu jotee ak lu mu tële tële dee ko ni ko julli jot na mu julli ci am xelam julli moom bala ko suñ borom gàccee ca ba nga doonee mu kàllaf ba bi ngay tëdd ci lalub sukkuraat julli du la wàcc yaa xam na galank bañ koo def bu boobaa yàgg buur bi ko santaane woon du yàgg nit ñi waye ba ba ngay tëdd ci loolu sukurat julli dula wacc sa yu julli joté nañ la déy la julli jotna nga julli ci sam xel fofu itam sop nañ fu bu baax bax koy tudd ci sawet koy tudd yalla ci sawet muy baatub la ilaha illallah muy baatub tawhid nga diko wax ndank ndank mu diko deg ndax dañ nit bu tollee ci jamono bobu dana fi mar mar wo xamanteni ni suñ ko doon jox geej gi man nako naan bam jeex te mar du dañ te yow kaasum ndox bi nga yor mëno ko ko jox loolu itam boo ko waxee nit kuy analyser cim xelam rek dana loolu mënta nekk ndax maa ngi ko jox ku dug ndox mënu ko jàllale ñu naan boo ko joxoon géej loolu sekk rek borom la ndax lan mooy am na ku toog ci wetam koo xam ne moom mi ngi koy gis te yow gisoo ko muy saytaane di la wax ni la deel ci déenay ma may la ndox mu sedd nga naan nga xam ne am na ñoo xamante biñuy mëna waxu di dem ak seen bop diine ngi and ak ñom waye bañ tëddee ci lalu sukurat seen pas-pas yàqu bu yag ak kéfer lañ yobalé motax ñu bëgg foofii ku koy taxaw di répéter baat di def salatu ala nabi ngir metit woow wi nga xamanteni ni mom lay démé lu ko mëna teew mëno ci dara ndax nit ko xamanteni ni mi ngi tëdd suñ ko joxé kuddu ndox mënatu ko jallalé bu dé kuddu ruuy bu ca jallalé genn jambar la ci surne bi koku laaj na dimbal te dé li tax mu gëna doon kiimaan moy boy dé say tank lay tambalé yalla ci sa tank yi lay tambalé di rocci tank yi di sedd ngay lamb muy seddaay bi di aju man no gi ci mujjon génn mu ni këlëng nga xam ni kii dee na loolu nag du lu yomb dem goog yi muy dem nga xam ni nit ki li muy li muy noyyi da koy xëccoo ak moom du lu yomb bu ko tiim mukk ba defee ni lu simple la simple na ci yow mi koy gis nga xam ni gisub saayir ngay gis waaye woyofut am na ñu am sens nag ñoo xamante ne ni lu lu woyof tooy lay doon ci ñoom noonu yi nga ko gisee rek noonu la demee waye amna ño xamni bu len yalla delo ci watone boko laaje dana la waccay mat nay at ci nimu yagge ci diire bi limi gatt gatt ci yow ndax lan sun borom dafa amul temps temps ci boppam amut ci sun borom lolou ay sabab la rek ñu sun borom tek ci sun diggante lolou daf cey daf cey bax ci dend gog yi nga ak mom ak di jekkal ab tëraayam fexe itam bamuy jublu moy bu faato niñ ko wara denc buy teud tëddul wop nako ko tëdde noonu di ko jubanti fexé ba mi jublu khibla tay wax baat yoy fexé itam ba jigen ju ndaw bañ fa jege ndax ñaari liñuy ñuy tàggoog sobe da bari wut tay liñuy mur seenu yaram wut te ñaari fu ñu malakam yermande da fay sori te koo kii moom foofu fii mu toll moom malaakam yërmaande dong la soxla bu boobaa lool loolu lay jariñ ci taxawaay bi nga xam ne diggante boobu yi moom lool yi lañ fiy soxla ci taxawu muy fexe ba muy mus dara su mënee jàll waaye fexe itam ba yaramam 17 ay sëram 17 fexé itam ba biir neeg bi li fi nek ci ay natal ay photo yu ñu wékk ak yoy nga wañiko ko fexé itam ba yiñ ko takalon yoy yeb nga gaawé ko tek na le fexé ba teray bi di jublu xebla so sun borom ñëwé nak akop dogalam nga xamné la yalla namon mom aksina na lañ ci doon bëgg mooy yow nga tudd yàlla tooyal sa loxo sëlëm ko muy bët yi gëmm gis nga bëtam yooyu mu aj di ko xoole bañ ko toggee jëf ba boobi malaaka mi di rocc room gi mboolem lim fi defoon moom lay xool ak ñeewante itam nag njaboot gi mu fi war a bàyyi nga xam ne daa war a tàqalikook ñoom tey jëm ci biir pax war leen fee bàyyi te ci ban situation la leen di bàyyi doom yi ndaw yaag eh, soxna ya nga ci gënonu bëgg ak ña nga lo nak ñoo ñëpp kenn ku ci nekk di dox ci sawet mu woon na ñi moom tàggoo nga ak ñoom yaa ngi jëm ci barab boo xamante ni nii xamoo fa dara amul benn information boo fa am lu dul ni li la sun borom doon wax ci arxaan nga di ko nattable ñu commencé nag di la ko wan ngay gis ni xaj di xoole di xool say jëf ya ca doon yu rafet doon ay jëmm yu taaru ya nga miinoon nga xam ni foo mu daan toog bu fa nekkee sam xel dana dal waaye jëf yu bon ya nga daan def doon jëmm yu xasaw yu ñaaw yu raglu yoo xam ne foo leen mos a samp saw xel yu jege la loolu la cay am ba keroog sun borom di dindi roga bu fekkente ni ku am ak texe la sun borom daf koy nocc ndànk moy malaaka mi koy jël ci da koy nocci su fekkente ni ko xamanteni narna nar ami jafe-jafe sun borom day malaaka mi day fekk roogi da koy fekk da koy bif té loolu la alquran nettali motax mu mata a xel bu baax bax ci bi ngay dund lepp luñ la wax ni la baxna na bu ca xaar kenn bu ca deglu kenn ne ca ku bëgg a yalla del sax ci jàng alquran ku bëgg mucc ci bir bammel del sax ci salatu ala nabi ku bëgg a mucc ci ab isaab bu ëllëgee moytul deru gor ñi te tey sab loxo alali jàmbur deru gor ñi moytu ko yooyu rek moo nu fa yàggal ginnaaw boo xamante ne nii étape boobu weesu na say bokk lay jële foofee nga tëddoon takk ba nga dëgër yóbbu fa nga xamante ni ba ngay dund kon la toog fi benn minute xaar ma nga lànk fa lañ lay fat benn ca wanag wa wala ca sangukaay ba wala ca margo ba rek ñaar yooyu dong nga fay fanaan ñu la gënoon a bëgg ci biir njaboot gi gënoo a taqoog yow kaay fanaan ak moom mun la ñemewuma ko kenn du jege koo jàppal mun laa saa yi moom xoolal kaneen mu des wàccaay waajal kii ngir jële ko nag fii ci barab bi sañciloo ko geneen kër nag ku ne ci kanam loolu itam di am ay taxawaay moo tax may wax ni nun nun ñépp war a jàng nu ñuy sangi am néew nu ñu taxawoo ku faatu nit bu tollee ci waxtu yooyu nun ñépp war a jàng nuñ koy taxawoo nu ñuy sangem neew ñun ñepp ko wara jang lu ñuy jangal ku faatu ñun ñepp ko wara xam waye da ngay gis ni nit ñi umpulé nañ ko té defuñu ko problème ginnaw nit ñi defuñu ko problème nak man makoy def problème jéem wut solution bala ma dem ndax da ngay gis ni nit ki ci buñ xasse ni faatu na ñu neew lay am ñuko nango ci ay bokkam yi ko gënoon a jege ñu néew buñ ne sang kenn ku ne commencé arrière dellu ca gannaaw kenn du ñëw léegi dañuy fay rek nu sangal nu bu dee Touba mën nañu am yaqin <coughs> ak ku kóoluteef ci ñi nu koy defal ndax ñi nu ko dénk seeni taxawaay matte na ko waaye ndax barab yeneen yi ci des noonu la demee est ce que do sangulum new rek ñu xep ko ndox rek nga genn rek ñu soti ko ci wam ndox la xass ko jox la man na ne te ñàkk taxawoo ko waral càngaay da am lum laaj bu dee jigéena dañ koy daggal ab ser wutal ko mbobbu daggal ko musor wutal ko ñetti mbalan bu dee dañ koy daggal tubay daggal ko mbubb wutal ko kaala ba pare wutal ko mbalaan muñ ko laxase yooyu yëpp dafa war a am te yooyu su fekkente ne nii maîtrise woo ko jàngoo ko doo ko xam ak it léemaay yi nga xamante ne nii nit daf koy soxla dañ daan wax ni sëñ Cheikh Mbacke sax moo doon wax ni boo amee ku faatoo laatu ñu koy génne biir néeg ba nga jàngal ko sóoratu yaasin foog naa ni du yóbbaale bàkkaar ñaata néew fi fàtt kenn jàngalu leen dara dañuy ñëw rek jàpp ca tànkee kee jàpp ci ndigg la ñu tegal béjjoo teg ci kaw oto bi dem yóbbu wala ñu boole ko mat laa ba mu doon taxañ rek yóbbu ñaata néew ana seeni bokk nit dana faatu ñu bind fii ci dënn bi laa ilaha illallah kalimat tawxid boobu daana tax dee su ko mbugal waye amna ñu ko xam amna ñu ko def ndax ñak ko ay taxaw ndox yoy ñu koy sange ñetti ndox yoy nga xamni benn bi lay ànd ak saabu bi ci ci ngaayul farata bi ci dess ndox lay doon mu ànd ak laj lañ pour gëtt gu neex gi yoy yëpp daf koy laaj ban bani bopam yi dañ koy sak dañuy sak nopp yi coton sak bakkan yi ba pare laa laalal ko gëtt ci ay rukkookaayam jël ko yi def ci laj laj ko lañ kepp ko ci xarantey tànk yi diggante baaraamu sànq lañ suuf ndax foofu ñaari léeg-léeg day am lu fi ne léeg nit da koy wéyaale rek moo tax ñu fay def gëtt yooyu yëpp ñu baax la ba ma agsi ca taxawaay ya mooy ci julle ba foofu nag laa gën a amee am tiit moom julle ab new mom wax deug yalla mom sama xel du ci dal muk muk muk muk. ndax société bi dañ ko banaliser dañ ko wayefal defuñu ko moy dara ndax yag giñ ko yag teewe ak min giñ ko min. Balang ko na xam fi mu ni waxuma fanen fi ci mbolo mi lay wax nga yor micro-trottoir kenn ko ne nga ni ko taril ma ñaan gi ni julleem do do am lu bari lim bu gayam. Mam am maam defuñu seen yitt sax ci war ko jang ci lo xamni waxtu woné dang koy soxla ngir taxaw su mbokum julit ñaan gi ñu julé am new ñu néew ko ci man ñu ci bari bu ñu ñew ci kay néew ba duñu indalem japp te do gis ñu tim te tim ga sax la wóoru ndax fardu la te xëy ñeneen ñu ko julli ga ñent kabar la kabar yoyu farata la buñ la ci rawee dang ko wara fay té da ngay gis bokk yo xamni bu ñëwé ben rakka la fekk ci julli gi bu imam bi sëlmalee ñu wëlbati ko koku lu mu doon wut ci julli gi lan la ci doon wut xamul sax limi def yoy yépp dafa mata baye xel bu baax ci taxaway itam nga gis société bi baye fi imam bi ko wara def di dabo ji am señ diiw mo xamanteni waat da ci yàlla mokkalut julli gi ñu jullem neew té du wax mut ni mukk ne te yoy itam ay erreur la fim doon yo xam mi ngi am ay nit ño xam ñu ngi leen di taxawulo duñu wax mukk ñi leen di taxawulo li nga may def lo mënuma ko waye dañu jël engagement di def wala dañu japp ni mbir ma fofu lay yem da nga japp ni kii fi mu teud tay yow do fi teud wala da nga defee ni li nga ko def du ak togn da nga japp ni kenn du ko lijjanti seen ginnaaw bo ëllëgee yoy yep dafa mata baye xel. ba pare néew na itam mbooloo mu bari moom mii nga xamante ne nii diw sàngam mii faatoo leen tax a néew néew na ci mbooloo moomu ñoo xam ne buñ dikkee ci yitte diw moomu la ne seen yitte bopp la ñu ne ñeent ngay gis fee ñuy waxtaan ña ca des nekk fee di kuréel di ree di tàppante te néew baa ngi tëdd nga xam ne mbirum kii moom taxut ñuy waxtaan bàyyiwuñ ko xel sax ndax tàmm guñ ko tàmm suñuy yóbbu itam da ngay gis ñu ni may leen néew bi mu jàll néew bee jiitu kuy gunge ku ñemewut Ya wara jitu nun no waron di jitu di jang alquran di ko kemt lay liñ man di def salatu ala nabi di jang ay muslay new bi top ci ginnaw ba keroog ngi aksi waye dañ nan may leen new bi mu jitu moy ñepp dégagé nañ seen responsabilité ñu sopp ko ci yoon wa suñ ñëwee tak ci kaw kaw jànj bañ koy mooy suuf sañ jële woon ci biir pax ma seen yéene jëpp mooy léegi dugal ko ci biir pax mi te pax moom yi dana la parasanté boppam mooy kër gu lëndëm la kër gu wéetaay la kër gu tàng la kër gu xat ndax ñaari sibru dong la ñuy natt ñaar yu toll nii képp lañuy natt loo ponkale ponkale ñaar yu toll nii lañ lay nattal noox la ci biir te wet nga ciy tëdd ñaar yu toll nii benn bunt la am boo duggee ñu sakku ben buntu kep lam boy dugg ñu di kosak. sakk te dana la présenté bopam dana wax ni la këru wéetaay la kër gu la kër gu bagage nga ci biir yo xamanteni bu sun borom namé ci yow yenen da nga leen gis am jitt amna am nay am sax yo xamni ki gas du leen gis ñi tim pax mi duñ leen gis waye néew bi mom dana ko gis te bo ci agge nga koy xam buñuy wax ni nak da ngay defee ni ki wax day ñangal waye buñ ci àggee ngay xamni nek lepp deug la ta say bokk lañu taggo ak yow dañ la dugal ci biir pax mi foofu nee nañ doomu aadama dana fa yoxu yoxu go xam luddul bayima luddul doom ma lu ko deg ci bu len ma fi nun bala taggo ak yow mom dañ la yeb ci biir nga gis ni bu doon ci yenen barab dañuy gas ba pare nguróoñaat pax mi nga xam ne dañ lay dugal ba ca biir làq la fi ñuy wàcce suuf si du doon ci sa kaw gis ci ñeneen ñoo xamante ne am nañu laa biir itam gu toll ni bu ñu gasee danañ gasaat ma maneen pax ci digg bi jël ay bant teg ci jël ay xob teg ci door a wàcce suuf si ci kaw waaye gis na bokk yoo xamante ne ni direct rek la ñuy def menn pax la ñuy gas bu ñuy root di suuf si boo jegee néew bi dëgg léeg-léeg da ngay dégg yax yi ni muy ruccuccu ci ndax suuf si ci kawam faar yi di bàyyi. da ngay gis ño xamné sax mom da nga japp ni ñi du ñu nit am ñok seen xel te yoy yëpp mi ngi am yoy mat naa xel bu baaxa a baax ndax genn wet nga fay tëdde wetuk ni jor la do banku amul wëlbatiku bi ngay dund sax buñ la fa yabon ni la gennal mëno gennal sa bop waxantuma nak bi nga démé ba teulé ci sa bop nga xamé amuto benn katan benn pexé ndam na te gis nga diggante boo bi mbokk yi wax li ñu xam su umpuk, deug lay baxna ndax yalla mom dara ump ko waaye léeg nga dégg fa ño xamanteni ni dañuy théâtre li wax dara du ci deug ndax dañoo defé ni suñu borom day nelaw wala dafa absent ak mata xel te yonent bi sallallahu alayhi wa nee na ñi doon bu ñu nee wërëñ nga daal di yor atteb barsàq mooy la ngay daal di bëgg mooy bëreet jóg ndax dangay dégg seen dàll yi nii ñuy ceppet ceppetee seen tëstan yi ñuy wàññi ko diggante boobu ñaari malaaka yooyu danañ fa ñëw. da ngay dégg gaa yi fii di di di lépp ci biir moto ginnaaw duñ ko gis ak duñ ko nàngam ak sëñ bi nee na nàngam ña sëñ bi wax ni duñ ko gis da ngay laaj sa bopp ba xam ndax bokk nga ci wala bokkoo ci. ndax sa pas-pas àgg na foofu wala ak ci sëñ bi moom li wax mooy ku ko fa gisul ci yow la kon mat naa bàyyi xel bu baax a baax waaye nun dangay gis ni sunu teewee ci barab yooyu nun ñi séq néew bi moom da naan ñii dañuy théâtre maam dañuy wax wax yoo xamante ni nii tegewut fenn ki koy wax du kenn kenn dara du ci dëgg léegi la ñuy suul ni ma nga àjjana te te la lay tax xam ni du dëgg mooy ki noon wax naa la mi nga àjjana bu ngeen demoon ba ca kër gi nga jox ko suuf ni ko demal yóbbul ma ko ca bàmmeelub diw ba dalaa waroon ni kay ma nga àjjana nekkatu fa du ko yóbbu waaye mooy waaxu ba ca biir barab ba mu sottiwaat ko fa bu weer wi waaja a del si déwén ni da ngay dégg communiqué ci rajo yi ñaanuk sëñ diw ga bi sàngam la bi sëñ diw nàngam ak nàngam xanaa néew ràjjana kon amna fanen fum nek keur goge mu sanc moy keur gi ngay mujj dëkk ci aduna di keur gi ngay jëkk dëkk ci barsax waye ay jotaay nga ca kanam nak yo xamanteni ni bu la sun borom defulun dimbal jotaay bo ca feru mo gëna metti ba nga passé ndax fofu daa am bagage ci bopam bo démé ci silkul jawahir sëñ Tuubaa nga fay malaka mu tuddu rawman xam nga fa baye moy ñi saw te saw mi du fer ñu ju wat seen tubay di dem ñoño dong la fay xaar te yar bam mu yor buñ dikkee dana len duma képp kuy dem ci ak di saw yi te saw ma ferul nga woggantiwaat sa tubay di dem boy bo nga xam ne raw nga fa di la xaar da ngeen gisee sëñ bang koy ci silkul jawahir amna ko ko ci da tagaliko koku li tax nga may da na julli di wor di ajmak di genn asaka raw ni ko def ba duma la dor da nga daan saw te saw mi du fer nga woggan sa tubéy di demaale ak sobe ja demaale ak sobe am na ñoo xam ne waxuma la am saw waaye tàngaayal jana ba sax dañ koy yendoo ba ngoon di furti furti fu ne ñu dugg fa duñu ci am soxla am ñoo xam ne sax xamuñu far nu ñuy julle nu ñuy sangoo farata nu ñuy sangoo farata gis naa jigéen ju dem bay boot ñetteel bi doomam di laaj nu ñuy sangoo farata ma ne ko yàgg sa jëkkër di rek gënoon ci yéen ñaar yéen ñëpp ci lu ngeen ne woon kon diggante la boo xamante ne nii bu danger la tëraay bu yàgg boobu yi nga xamante ne danga ko fay tëdd te kenn xamagut kañ la jëm lu dul ni mu soob suñ boroom ndax balaa yàlla jublu ci bindee fi moom àdduna daa tukki li fekk àdduna tukkeegul kuñ la laaj ne leen mi ngi ci pax yi bu dee ruu yi ma nga fa sun borom denc fa ko soob tëraay ba nag mën naa neex mën naa naqari tëraay ba man na neex mën naa naqari maag yow man nañoo bokku teud lalu dubuli li wala kenn ku nek ci ñun ci yor sa double li fu la neex beeru mu jëm nga yeewu naan guddi gi daa gàtt man wëlbatiku sax defuma ko bët set kanen ka ci dess yeewu ko dik na la li ma fanaane biig ko fanane tay jaral na ma tok di te yu gis dong lay doon te yow giso ci dara motax mata baye xel bu baakha bax te gis nga buñ jógee fofé ci jëm ci pénc ma dañu nit ku ne malaakaay jiitu nit toog ci digg bi malaaka topp ci ngeen wuti pénc ma mooy amul foo jëm nit ñi defu nag bu ñu ko jëndee daral ab pël jiitu yoru buum ganeen pël topp ci yoru yat saahiq wa mashud mooy kuy wommat ak kaneen ku topp ci gannaawam di teere nga jëm ci pénc ma waaw saahiq wa yoy dafa mata a xel muy kuy womat ak kanen ku seere top ci gannaawam loolu dafa mata a xel bu baakha bax taxaway ba bis pénc rek taxaway ba la tax ñu naa ko khiyama da nañ ci ag taxaway bu yag yag la alquran wax na ci lulul jeex fi yawmin miqdaruha xamsiina alfu sana lo wax taxawaay ba kep mat na juroom fukki junni at ci buñ ko don nat ci ati àdduna yoo nit ñepp dañuy taxaw ni sàmm kenn xamut foo jëm kenn xamagut ci sa bopp dara koo wax mën la taluma la saa bopp rek koo wax rek naa la man tawi ba moom taluma la yow ma yafirul mar u min nit di daw mbokkam wa ummihi wa abihi nit di daw baayam di daw ndayam wa saahibatihi di daw jabaram kenn ku ci nekk ku ci gis sa morom rek sa saw xel di mooy lu tax mooy daa am àq yu dox seen diggante yoo xamante ni doo jéggi siraat mukkute réglé wuñ ko mënta ne loolu tax ñuy dawante gis nga ni jigéen ñi def ci ngéwél bu ñu la amee lee yaari ndawtal ñett mënatoo leen a gis ci xew xew woo leen gis dañuy moytu moytu ba keroog wala dañuy dàq heure ba ngay dem ci xew ñu door a ñëw ëllëg yomal xiyaama ko gën a garaaw danga gis ñoo xam ne day ñaan yàlla ni ko te nga noo dimbali yóbbu nu sawara ñu noppalu ndax taxawaay bu metti bi taxaw rek sa mu taxaw ak yu tiitaange yu bare bari yoo xam ne borom da mel ñu mandi yalla ni mandi wuñ de sama mbugal metar rek motax ñuy jayi jayee ka kayang kayang ini wa tara nasa sukara wa ma hum bi sukara walakin azab allah sadid mbugalum sun borom mi motar te yi ñuy wax yépp lay passé yu ñu jëm ci sun kanam la la sun borom na wax rek man sa afal yumin wa man sa afal yakfur kum neex gemal kum neex weddil waye mi ngi ci sun kanam dañ ci newut ci gannaaw yooyu mat naa bàyyi xel bu baax ca taxawaay boobee rek dangay ngay dégg sëñ fi mu wax naan yajiu yawmal qiyaamati wal anbiyaau lahu wal kullu xat wa kima yaqulu kulluhum nafsi wa ahmaduna yaqulu kulluhum nafsi mboolem yonent yi ñëpp koo ci daw wuti naa la taluma la may ma sama jàmm sa bopp laa tal yonent bi sallallahu alayhi wa képp la ñuy fekk fa mu nekk ko ñaan ko mu ñëw ñaan boroomam mu yaram bindee fi kep motax tax yi ñuy wax ni yépp ay théâtre la ñun dañuy taxan rek yor sunum xel di di di rek di xalaat di ràcc di tay ci sunu gono rek mu melni aljana àjjana da ngay nelaw rek yewoo fa wala dañuy rob rek nga waxu dugg aljana wala ëllëg yomal xiyam sëb sëriñ day ñëw taxaw rek ne ana ana sama waa kër ñu ni ñu ngi ni mu ni jaar leen fii ah ban àgg ca wallaahi laasim buñ ci àggee ñu xam ne yàlla benn buur la buñ ci àggee ñu xam ne yàlla benn buur la li ñuy wax lépp dañuy lépp te li tax nga war koo gëm mooy sayyidina muhammad salaale alayhi wa moo gën ci mbindeef yi bi ko suñ borom naree yóbbu opp wopp ja ko yóbbu dem na ba mënatul a taxaw ndax taraayu wopp ja te yàlla ne na ko yaa ma gënal waaye teewut dañ koy lëng muy julli boy dox tank yi di ko dem na bob bi di bëgg toj ndaxu metit nga xamni dañ ko takkal bob bi wutu musor takkal ko ngaaw bob bi tak bam mu dem na bañ tajal ko ndox ndax tangor wi genn ci yaram wi ñu japp ni loxo bopam bi mo upp yermane ñukoy xojal loxom ci bir ndox mi di selamal bopam ndax japp ni loxo bopam bi mo upp yermane ci ñom ñu di ko defal nga xamni ne mënalootu ko bopam yalla mi jaar ak soppeem fofu man na jaar ak yow